bismillahi rahmani rahim allahuma salli wa sallim wa barik ala wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi bi ihsanin ila din bokki tedd yi xasidi gi topp ci moo min a saytaani giñ doon nafar ak ci ñaari fan yi moo tudd ahasanil baqi min a saytaani gi dugaat nag mooy ahasanillahu min sitaan ñaar yëpp ñoo bokk euh, laay ju leen sëñ bi tënkee ñaar yëpp mi ngi leen tënkee aousu billahi min sitaan rajim nga xam ne bi ñu génnee muy ahasanil baqi min sitaan yi ñaar fukki bayit la ak juróom bii ñuy dugg te mooy ahasanillahu min sitaan yi ñaar fukki bayit la ak ñeent dafa am lu ko waral mooy dafa am sadd boo xam ne indil ko ci bii ñuy dugg bu ko defee kon xasida gi jeex na mooy sëñ bi da doon sant di nettali ay jaar-jaaram di sant boromam muy xéewal yu ko fa sunu borom defal waaye itam ñi daane woon ci mujjanteel gi yëpp muy képp koo xam ne ëmb nga ci sa xol ak mbañeel ci jëmmi sëriñ bi radiyallahu anhu fooy mujj ak ni ngay gotte ko ak ni ngay sëri yërmande yàlla sunu borom ak mboolem sa ñaay baadaar sunu borom dul ko nangul te da nga rëcc àddina ak àllaaxira te suñu borom dal la alak képp ko noonee sëñ tubaa waaye booy xool xasida gi day ñëw gën koo confirmer ki bañ sëñ tubaa dëgg dëgg dëgg xasida gii ñuy firiwaat mooy ñëw gën koo confirmer waaye itam xasida goo xam ne ki noonoo sëñ bi moom la ci sëñ bi da wax waaye xasida la goo xam ne itam moom jëmmi sëñ bi da cee wane ni ko yàlla musalee ci seytaane ni mu muccee ci seytaane ak ni ko yàlla xéwalee ak njub nu mu nekkee ci njub ak ni ko yàlla mu musale ci seytaane ak ki koy bañ fi muy mujj ci réccu rek lay ci ci riccu rek rek rek rek rek ci lay dëkk nga xam ne dafa mel ni kon xëcc dëggee la waraloon mu dagg ko mooy dafa am nu mu doon nettali te mooy tukki bi léegi nag bii daanaka ñaari xasit yi man nga ne benn lañ ndax ñoom ñaar la sëñ bi bindee ndoor waaye nag ñaari xasit la bii ahansanil baqi a seytaani la bii ahansanil lahu mina seytaani waaye ñoo bokk benn laay bu leen sëñ bi tënkee te mooy ahans billahi mina seytaani rajim bu ko defee kon ñi ànd taak ñi ànd ak yéen ci xasida gi incha allah bu ko defee am na lu ñuy fàttaliwaat muy xasida gi ñu génn muy asnil baax mi na sitaan am na ci baat boo xam ne ni ma ko indee ak yéen ni ngeen ko indee bokkul waaye bu ko defee kon it man ngeen di jàpp bu ngeen indi mooy nafaali xayri kulla man takk takkabara baaqin xamaani bi masaayal kubara yàlla dàq na mu jëm ci ku dul man képp koo xam ne dana rëy rëylu yàlla mi nga xam ne mooy ki ma aar waaye baat bi moo doon xabbaani yi dafa naa ne man xasida gi mu leen di avant yi sax xabbaani yi la def waaye man dama gis xasida gi ma amee di ko di ko firee moom xammaani la def te diiret du xammaani xabbaani la war a nekk ndax dafa jubloo rek yàlla mi nga xam ne mooy aji def ji maanaam may na ma xam xabbaani may na ma bi masaayal kubara ci maanaam may gaañu màgg ñi kon bu ko defee ñu bàyyi xel foofu ne xabbaani la waaye du doon xammaani xabbaani mooy gën a matale foofu ci woyu bu defee kon xabbaan yi danga koy xataf rek ci masaaya nga xam ne xabar ji mooy kubara incha allah bu ko defee kon sëñ bi tàmbalewaat ne bisimillahi maa ngi tàmbale sama xasir gi ci turu yàlla arrahmaani buur bay xéewalaa kon bépp mi ndéef ci àdduna arrahim buur bay ajiram ko sob ci àlaxira tàmbale na ci turu yàlla yàlla mi nga xam ne mooy xéewalaa kon bépp mi ndéef ci àdduna ñu koy weddi ak ñu koy jaamu waaye yàlla mi nga xam ne mooy ajiram ku ko sob ci àlaxira nga xam ne mbooleem xasidaam bi lu mu yàkkamti yàkkamti yàkkamti bisimilah rahmaani du ko fàtte kanaa léeg-léeg nga xam ne day def lu ko ñor dëgg dëgg dëgg wala muy dàqal yàlla tuuma lu rekkay tax nga xam ne day yàkkamtee dem ci lu muy wax te bisimilah rahmaani rahim yërmande la moo tax gis nga léeg-léeg buy wax ak nasaraan si du indi bisimilah rahmaani rahim ngir lan waxut ak ñoom ci yërmande moo tax du indi bisimilah rahmaani rahim gis nga xasida ak yaa jumla tan ñëw rek wax soxlaam lum lu ko waral mooy waxut ñoom ci yërmande ndax lu ñu wax yàlla moo ëpp moo tax bi muy ñëw indul tarjumaan indul bismillaahi rahmaani bi dafa jëm rek dafa tëb rek ne yaa jumlatan xat fal sobi daal waaye geneen xasida goo gis rek muy sant boromam da ngay gis ne bismillaahi rahmaani bi la koy tijjee mu ne maa ngi tàmbalee sama xasida gi ci turu yàlla yàlla mi nga xam ne mooy xéewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna waaye tey ajiram ku soob ci àllaaxira mu ne allahuma yow sunu borom maa ngi lay ñaan salli yàlla na nga dolli xéwal wa sallim ta nga dolli wóolu wa baarik ta nga dolli barke ala sayidina ci kaw sunu sanga bi wa mawlaana kii nga xam ne mooy sunu kilifa gi muhammadin turam mooy muhammad wa alihi moo ki waa këram wa sax bi ak ay saabaam salaatan dollik teral goo xam ne wa salaaman ak dollik wóolu goo xam ne wa barakatan ak dollik barki goo xam ne tattaxabulu da nga nangoo bihaa ci salaatu wa salaam googu bi xadri asamati ci daraja bi màggaa yub saatika sa jëmm ji taxawusu taxawusa da nga musal xaasal xabdi bii jaam alxadimi ki nga xam ne mooy kiy sax dàkk di liggéeyal sëb sëb yonentu dikk ci sa kattan dënk musal dikk ci sa kattan waaye itam dënk musal bi xawli ci barkeb sa wax ji nga wax dënk dënk musal minhu ci moom jëmi sa nji wa tarda te te gërëm bihaa ca moom abadan ci luy sax ba fa waxaan fu wëlis ko bu ko defee gannaaw bi mu tàmbali bismillahi rahmaani rahim nga xam ne saa yu tàmbali bismillahi rahmaani yi na ma leen ko waxoon rek la muy njëkk a def balaa muy jàll di wax soxlaam wala muy sant boromam day julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam comme ni ko yàlla déglee inna allaha wa malaikatu yusluna ala nabii yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman mu ne yow borom maa ngi lay ñaan nga dolli xéwal ak dolli wóolu ak dolli barke ci kii nga xam ne mooy sunu sang bi tey sunu kilifa ñun ñëpp mooy sunu kilifa ca dëgg-dëgg nag mooy dëgg dëgg-dëgg mooy muhammad waaye salaatu googu nag na dem na dem na dem ba ci ay waa këram yëpp ak ci ay sahabaam yëpp waaye na doon salaatu wasalaam goo xam ne ak barki boo xam ne danga nga ma ci nangulee da nga ci nangulee ci darjaay sa màggayu jëmu ja danga ma ci nangulee xasida gii may bëgg taarif ak mboolem ñaan gi ma bëgg ñaan waaye da ci musalaale sab jaam bii nga xam ne li ko tax a jóg du lenn du may jaamu yàlla ak liggéey ak liggéeyal yonent bi te sax ca dàkk nga ne kon da ci musalee salaatu wasalaam goo xam ne da ma ci nangulee ci sa màggayu sa jëmu ja waaye danga nga ci musalee sa jaam bii di liggéeykatu sa yonent waaye nag ci sa kattan ak ci sa wax ji nga wax ne avance billahi misita rajim da nga ci musalee sa jaam ji waaye nag da ko ci gërëmee wëlis ko moom kii nga xam ne mooy sa jaam bi te mu jubli ci moom jëmi sëriñ bi di la am tax mu ne salaatu goo xam ne na ñëw ba ci waa këram ak ay saabaam yëpp salaatu wasalaam goo xam ne ak dolli barki ak dolli goo xam ne tat taxabalu da nga nangoo bihaa ci moom ci salaatu wasalaam googu bi qadri asamati ci dara darajaay ci dayob xasamati màggaayub yow yàlla saatika sa jëmm ji taawu sa da nga ci musalee ba tey salaatu salaam bi xaasal xabdu bii jaam nga xam ne dafay def isaara nga xam ne moom jëmi bi jaam bi moom la ci jublu nga xam ne salaatu salaam goo xam ne suñu borom da ci da ko moom jëmi sëñ bi nga xam ne mooy jaamab yàlla moo tax ne taawu sa taawu sa da nga ci musalaale xaasal xabdu bii jaam te mooy salaatu salaam bi alqadimu tey sax dàkk di liggéeykatub sab yonantu waaye nag da ko ci musale bikka ci sa kattan fi xawli ak ci sa wax ji nga wax ahansu billahi bi sar jëm da nga ko ci musale ba tey minhu ci moom jëmi bi waaye watarda ba tey salaatu salaam koo xam ne da nga gërëmee biyaa ci salaatu wasalaam googu moom jëmi sëriñ bi abadan ci luy sax ba faw xan ko moom jëmi sëriñ bi man daal na ahansu billahi mina seytaan rajim ahansu maa ngi muslu billahi ci kattan yàlla mina seytaane ci seytaan yi rajim kada kuñ dàq moo la si yërmande yàlla léegi nag xasida gi ko ngi ko tënkee a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim day jël alif gi jël añimintalu gi jël waagu jël del ju toj ji jël baa jël alif gi noonu nga ko toppee ba xasida gi jeex mu doon ñaar fukki bayit ak ñeent insha allah kon mu ne maa ngi muslu ci kàttanu yàlla ci saytaana mi nga xam ne dañ koo daq mu di si yërmande yàlla comme nañ ko jàngale léegi rek saytaana dañ koo dàq ci mboolem yërmande yàlla nga xam ne fu mu toll rek day daw fu mu toll rek day bàyyi waaye képp koo xam ne nitu sunu borom la rek da koy bàyyi xel gis nga sëñ Tuubaa nee na saa yëkkatee xalimaam gi nee na day def ba xiit daw waaw nee na seytaane day daw mbindam day daw mbindam comme ni nga xamee ni ku ragal nu muy dawee la mu ragal nee na seytaane lu raw loolu lay dawee mbindam mhm. kon dégg nga loolu wa tarda biha abadan anhu axuusu billahi min sitaan rajim kon xasida gi fi la dalee axaasani llahu min asaytaani fi kulli majlisin wa fil awtaani mooy mustafxelun mustafxelun mustafxelun ahasanillahu min aseytaani fi kulli majlisin wa fil awtaani ba tey rek mi ngi sant boromam tabaraka wa taala ci musal gi mu ko musal ci seytaane ak fépp fu mën a nekk moo tax ma ne ahasani musal na ma allahu yàlla mina seytaane ci seytaane fii kulli majlisin sama bépp jotaay wafil awtaan yi ak sama biir dëkk yëpp seytaan amul foir la yàlla musal na ma ci man sama jëmi bopp yàlla musal na ma ci seytaane waaye ma mën a toog rek jotaay fa nii rek yàlla musal na seytaane du fa jege waaye fépp bépp dëkk boo xam ne sanc naa ko rek yàlla musal na ma fa seytaane du fa jege kon moom la daloon Seydina Omar ba nga xam ne jotaay bu mën a jotaay wala mbedd mum sóobu seytaane dana toog ñeent fukki bis du fa jaar ngir lan ragal képp kon Sëñ Tuubaa sax moom waxut loolu la Seydina Omar euh, amoon sunu borom defal ko nga xam ne mbedd mun soobu saytaane du fa soobu ñeent fukki bis am na téere yu wax ne ñeent fukki bis am na yu gën a néew loolu am na lu ëpp loolu waaye Sëñ Tuubaa nee na fu ma man di jotaay rek wala samay dëkk rek yàlla musal na ma fa saytaane du fa taxaw kon moom mooy ku kenn xamut ah <laughs> ni musal na ma allahu yàlla mi ne ci saytaane fii kulli majlisin sama bépp jotaay wa fii awtaan yi ak sama biir dëkk yi sama biir dëkk bu ne rek bu mu mën a doon rek ak bépp jotaay bu mu mën a jotaay rek yàlla musal na ma fa ci seytaan seytaan yàlla musal na ma fa xallama ni alalimu taxlima alalim wa qaada lii fii xidmati nabil olom mu ne allama ni xamal na ma alalimu yàlla muy aji xam yàlla muy xamaakoon bi te peeg mboolem xam-xam yi xallama ni xamal na ma alalimu yàlla muy aji xam taxliimal alim maanaam xam lekk aji xam maanaam xam nga yàlla dafa xam ba noppi ni yàlla xamee nag te léeg-léeg muy xamal ab nako na soob ndax wax na ne allamani llaahu alim bi maa yasaau min ulum yàlla muy aji xam ji xamal na ma la ko soob ci xeeti xam-xam kon loolu kenn xamul xam-xam ba na mu toll yàlla kool na ko soob rek mu xamalee sëñ Tuubaa noonu ci fànn ci fànn xam-xam yëpp ko waxoon ci nuuru daane rek wam fas bi sadriyal uluma naasiha wàccan xayaati li waccaal xayaati li nabii naafian maa ngi lay ñaan nga wëttu sama dënn bi sama dënn bi xam-xam yi am njëriñ yépp nañ nekk sama biir dënn waaye na nga def sama dund lépp muy njëriñ moo tax mu ne xàll ma ni xamal na ma alalimu yàlla mi nga xam ne mooy aji xam nan la ma xamalee mu ne taxlimal alim maanaam xam nekk aji xam maa xam nga yàlla dafa xam bu noppi yàlla ni mu xamee nag xam mboolem xam-xam yi xam fañ nekk wa ana laa qad ahata bi kulli shay'in man nee na noonu la ma xamalee nag moom yàlla moom ci jëmmam ji nga xam ne dafa xam ba noppi ni mu xamee léegi na noonu la ma xamalee wax ju wax ju kawe kawe la kawe la ci wàll ci wàllu tasawuf nee na yàlla mi tudd alim nee na xamal na ma maanaam xam lekk aji xam mu ma ko doon misaalal ñi ne tey dong bii kat dafa dem ci sëñ daara bi mu koy jàngal lu tax sëñ daara bi da da ko gën a xam moo tax mu jàngal ko kon nag sëñ bi moom yàlla moo ko jàngal yàlla ni mu xamee noonu la ko xamalee moo tax ma ne waxaada wa na moom yàlla lii ñeel ci biir liggéey bii nga xam ne moom laay liggéeyal annabi kat kuñ soloo ko alxoloom xomat na mboolem xam-xam yi jox ma xam-xam yi ngay dégg yëpp ba ci xam-xamu ëtt yi sax nga xam ne Sëñ Tuubaa sunu borom tabaaraka wa taala euh, yëpp daf koo joxale moo tax mu ne waxaada woo womatal na ma moom yàlla fii xidmate ci biir liggéey bii nga xam ne moom laay liggéeyal annabi kat kuñ soloo bi xomatal na ma alxoloom mboolem fan xam-xam yi ngay dégg ci kaw suuf ci ëtt bi mu ne wajjaxa jëmale na moom yàlla ilaa siwaaya mu jëm ci kudul man bi ci darja yonente salaam wajjaxa jëmale na bii ci darja yonente bi alayhi salaatu salaam ilaa siwaaye mu jëm ci kudul man kulla mafsada képp koo xam ne yàqkat la jëmale ko mu jëm ci kudul man waaye ci darja yonente bi man yàlla mi nga xam ne kafaa fegal na annabi yonente bi xusada ñi nga xam ne ñooy woy kañaan yàlla mi fegal yonente bi alayhi salaatu salaam ñi nga xam ne dañ ko kañaane woon ci jamonoom ñëpp nee na yàlla moom moo jëmale seytaane ci darja yonente bi alayhi salaatu salaam mu jëm ci kudul man waaye moo jëmale képp koo xam ne ab yàqkat la wala lépp loo xam ne lu yàqu la wala képp koo xam ne day yàq rek nee na yàlla xàjji na la nga jëm ci ku dul man moo tax ma ne wajaa jëmale na bii ci daraja yonent bi ilaa siwaaye mu jëm ci ku dul man kul la mafsada képp koo xam ne aji yàq la kuy yàq rek ak lépp lu yàqu rek nee na yàlla jëmale na ko mu jëm ci ku dul man waaye ci daraja yonent bi man yàlla mi nga xam ne kafaa fegal na annabee yonent bi xusala ñi nga xam ne ñooy woy kañaan yi sabba bila taslitin baaqil qadim ahdaaho ila siwal habdil qadim mune yàlla sabba joñ na albaqi yàlla mi nga xam ne mooy aji des alqadim tey aji jiitu jiitu koo xam ne amul fu mu tàmbalee waaye amul fu muy yem joñ na lan ah daa oxoo noonam ya bilaa tasliitin ci lu dul mu leen di xirtal di leen dàq bilaa tasliitin ci lu leen ci lu mu leen di xirtal joñ na leen ilaa siwaa ñi jëm ci fudul alxabdi jaam bii di jëm ci sëriñ bi te mooy seexul xadim moom lay wax moom ci jëm boppam alqadimi kii nga xam ne mooy mooy ki sax dàkk di liggéey yonente bi alayhi salaatu salaam nee na yàlla gëñ na say gëñ na noonu yëpp waaye bi mu leen joñee da leen xirtal bi mu leen xirtalee nag da leen dàq ñiy daw rek waaye nag duñu yenu ci sëñ bii nga xam ne mooy alxabdul xadim kooku moom duñ fi yenu duñu yenu ci sëñ bii nga xam ne mooy alxabdul xadim waaye nag yàlla da leen joñ xirtal leen dàq leen duñ jege sañ bi dañ dañuy daw rek di dem waaye nag duñ jëm ci mukk mukk duñ jublu mukk ci kii nga xam ne mooy al abdul xadim nga xam ne kon turam bii turu ko neex la daanaka indi alhamdu rek da ngay gis ne day indi alxadim moo tax mu ne sabba joñ na albaqi yàlla mi nga xam ne mooy aji des ji mooy ki fee sax ba faw waaye alxadim mooy aji jiitu ji nga xam ne am fu mu yem waaye am fu mu tàmbalee bilaa taslitin joñ na lan ah daa oo noon yi bilaa taslitin ci lu dul mu leen di xirtal nag xirtal na leen nag waaye ci lu dul mu leen di xirtal ilaa si waa na leen ñi jëm ci fudul alhamdu jaam bi nga xam ne mooy sëriñ bi alxadim ki nga xam ne mooy ki sax dàkk te liggéey yonent bi alayhi salaatu salaam kon yi waaye nag bi mu leen xirtalee joñ leen jëm nañ fudul alhamdul qadir ki nga xam ne mooy alhamdul xun te mooy jëmi sëñ bi mu ne bismun illaahi maa ngi bismun illaahi maa ngi tàmbale ci tur yàlla xabbasa ak a baax waaye arrahmaanu yàlla mi nga xam ne mooy aji xéewalaa kon bépp mi ci mooy ki nga xam ne mooy aji yërëm xam ne loxoo ñeel na ko moom moom al asmaanu jamono yi maa ngi tàmbaliwaat ci turu sunu borom tabaaraka wa taala moom mi nga xam ne mooy ilaah nga xam ne bokkut ak allahu ilaah nag xiram yi dañ ko tuddee Eh, ñi nga xam ne ñoo doon Firawna ak ku nu mel ak ku nu demee ñëpp daan nañ ko tuddee ne ñoom ñooy ilaahu waaye mos ñëw tudde seen bopp allahu waxoon naa leen tur yi yëpp ñi nga xam ne dañ daan wootu nguur wala ñuy wootoo yàlla dañ daan tuddee seen jëmm ji ilaahu kon ana rabbakumu lëxlaa gis nga maalakum min ilahin xayri xayri fa awqit li yaa haamaanu ala tiini fajhan li sarhan ko gis nga Firawna moo ko wootoon te mooy turu ilaahu moo ne woon gisuma geneen yàlla gudut man waaw gisuma geneen yàlla joo xam ne moom ngeen di jaamu gudul man man rek maay yàlla man maay ilaahu waaye nag man maay ana rabbukumul axla man maay a kawe moo tax ne maa ngi tàmbale ci tur yàlla yàlla daal ak a baax dëgg-dëgg moom mi nga xam ne mooy aji xéewalaa kon bépp bindéef ci àdduna waaye a baax nga xam ne fexlu la day tagg suñu borom bu ne niix ma rek mooy est-ce que na ki nga xam ne ku ko sopp ci àllaaxira te ko doon jaamu mooy ki nga ne mooy ki moom mboolem jamono yépp moo leen moom moom suñu borom mu ne alhamdu mboolem xaaji cant yi yi ñeent yëpp lillahi aji sax la ñeel yàlla rabbil alamina moom mi nga xam ne mooy borom bi defi waaye nag xalal amini yàlla na ko sopp ci kii nga xam ne mooy ku ñu wóolu ko te muy yonent mooy ku ñu wóolu ko te muy alquran wal amin ak kii nga xam ne mooy ku ñu wóolu ko ba tey te muy ne ñetti al amin yoo xam ne benn bokkut ak sa morom bii bii alquran bii mu ci Jibril mi nga xam ne mooy indi alquran mu ne mboolem xaji cant yëpp daal ñeent la moo xam sant yi sant gi nga xam ne yàllaa ko sant boppam wala mu sant ko ak jàmm wala sant guy nit ki di sant yàlla wala bindee fi sant gu ñuy sant ak seen biir ñeenti xaaj cant yëpp ñeel na yàlla mi nga xam ne mooy borom bindee fi mu ne cant yooyu nag yàlla na nekk ci ki nga xam ne mooy ku ñu ko te mooy yonent bi waaye ak kii ne mooy alxuraan te muy téere bu tedd bi waaye ki nga xam ne mooy Seydina Jibril mu indi téere bi e, sunu borom waxyu ko tabaarikala mu indil ko kii nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne lëxoo ñeel na ko moom yàlla sukkoor yi samay cantu cër baada xam din gannaaw sama cantu xol sama cantu cër goo xam ne ak cantuk làmmañ goo xam ne sarmada dañuy sax dàkk wa innahu moom yàlla xat xamida aji sant la kulliyati sama lépp nee na ñeel na yàlla sama cantuk cër gannaaw bu ma jëlee sama cantuk làmmañ laa njëkk jël jox ko léegi nag damay jël sama cantuk cër yépp di ko jox nga xam ne amul dog ci luy sax ba faw day sax rek di continuer ba faw ndax moom yàlla dafa sant sama lépp sama lépp lépp bul bàyyi dara kulliyat yi moo gën a matale kullu kullu am na lu mën a dugg am lu mën a génn waaye kulliyat yi moom lépp léppam léppam loo jël rek yàlla sant na ko lépp loo mën a jël rek yàlla sant na ko te muy bokk Sëñ Tuubaa nga xam ne boo ko limee limaale Sëñ Tuubaa rek kooku ci kuliiti lay dugg loo ñeel na ko moom saraftu wëlbatiku naa loxoo jëm ci yàlla wëlbati naa loxoo jëmee ci yàlla ku la xam ne bépp cantuk làmmañ abada ci luy sax ba faw te walaa yoojiwu moom yàlla du jëmale ilee ci man mukk kammadaa li nga xam ne mooy njàqare nee na wëlbati naa sama géppuk cantuk làmmañ sama cantuk làmmañ yëpp wëlbati naa leen jëmee leen ci yàlla waaye nag amul dog day sax ba faw te yàlla moom ma jëmale samay cantuk làmmañ de jël ma lépp wëlbati ko jëmee ko ca moom nee na yàlla moom du jël ay njàqar mukk di di ko jëmee ci man haddaani yal haadi fala adilu wa han sabilillahi la uddalu nee na xaddaan yee gindi na ma mooy jubal na ma alhaadi yàlla muy aji gindi ji yàlla mi nga xam ne moo tudd alhaadi yi nga xam mooy gindi ku ko sopp wa inna allaha lahaadi lasina amanu ila sirati mustaqimin yàlla muy tudd alhaadi nee na leen gindi na ma moo ma gindil boppam fala addile tudduma réer mukk wa an sabilillahi wali si yoonu yàlla yi nee na yàlla moo ma gindi ci turam yi di alhaadi te man Sëñ Tuubaa du ma mos a wàcc yoon duma ma mos a réer mukk wali si yoonu yàlla yi waaye nag laa uddulu du ma réerale du ma réer du ma réerale kon boo ne fala mooy du ma réer waaye nag laa uddalu mooy du ma réerale réeruma du ma réer du ma réerale du ma sànq kenn kon daal man ci yoon wi laa jëpp ku ñëw topp ma ma nit ma jubal la kon rek noonu la moo tax mu ne xadaan gindi na ma alhaadi yàlla muy aji gindee ji falaa addile te du ma réer mukk genn gindi la am yàlla moomu ko gindi gindee ko naa te dootuma réer waxam sabilillahi wala si yoon yàlla yi laa uddala te du ma réerale mukk man na xaaliyallahu bi istiqaama wa bi bil kitaabi wal iqaama nee na man na xéewalee na ma man na xéewee na alee ci man allahu yàlla bi istiqaama njub mooy damaa jub kot ci istiqaama mooy koo xam ne dafa sax dàkk ci yoon yi nga xam ne du ko wàcc mukk inna lasina xaaloo rabbana allahu suma staqaamu falaa xafun alii walaam yasnoona lu jafe-jafe la mooy nekk na coow ci yoon yi mooy ñi nga xam ne dañoo wax ne sunu borom ay borom mooy seen borom waaye nag ñi sax dàkk yéeg ci kaw yoonu siraatal mustaqim suñu borom nee na bu yowmal xaame ñooñ du ñu ragal du ñu tiit njàqarama la muy bëri bëri tartar lu ñuy bëri bëri ñooñu de du ñu jàq du ñu tiit du ñu ragal dara moo tax mu ne yàlla nag moo ma xéewalee njub goog njub góog muy wax ci alxuraan muy istiqaama muy sax dàkk ci yoon yi te doo ko wàcc nee na yàlla moom ko xéewalee man na xéewale xéewalee na ali ci man alaaw yàlla bi istiqaama ci njub mooy sax dàkk ci njub ga bokkut ak huddaa waaye istixaam mooy coow ca yoonam moom la Seydi Aj Maalik seetu loolu Sëriñ Tuubaa ne mbooleem yàlla yi boo demee ci ira wax ne da ko da nga koo fekk euh, bis ñëw na ñi fakkatalu def ak njombe dellu seen borom tuub bàkkaar ba waaye Sëriñ Tuubaa rek moom lañ xam ba mu juddoo ba nu muy xàmmee ba du muy doonee mag mostu wàcc yoon yi dafa judd rek topp sunna waaye wajaada moom yàlla tabee na ma mooy may na ma bil kitaabi téere bi di alquran waaye nag wal iqaama ak sax yàlla tabe na ma alquran waaye sax ci alquran waaye sax sa njub ga waaye sax ci alquran nga xam ne alquran moom it dafa nekk jëmmi njub ndax kenn mëntu jub kenn mëntu jaar ci yoon te jàppoo alquran muy sa téere bi nga xam ne alquran dafa ñëw ngir di orienté ni di leen gindi di leen jëmee ci seen borom ndax mu lil muttaqin la yàlla wax njub la ñeel ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla moo tax mu ne yàlla xéewalee na ma njub waaye nag ba noppi nag wa jaada mu tabe ma may ma bil kitaab bi tey bi di alquran waaye nag ak sax ca di ko luññiti di ko jàng di xool ay max naa am nga xam ne ci lay gindee ko ci lay tegtaloo jëm ci suñu borom tabaaraka wa mu ne nabi naa suñu yónnent bi a mahaa far na xan nii mu lis ma man sëriñ tuba almalaama yeddaange nee na yónnent bi alayhi salaatu salaam nee na moo far ci man lépp luy xeeti yeddaange nee na man aw ma yeddaange kenn du ma yedd ci dara kenn mosumaa yedd ci dara mosumaa def bàkkaar bu ndaw mosumaa mooy yàlla mosumaa def loo xam ne ni xeeti mooy yàlla ndax yonente bi moo far ci man lépp luy xeeti yeddaange lu ko mooy damaa topp coow ci sunu yonente bi alayhi salaatu salaam te du ma ko wàcc mukk moo tax mu ne nabi naa sunu yonente bi maha almadaama lépp loo xam ne ak yeddaange la sanhismati bi moo may borom ak ñoŋ nga xam ne damaa ñoŋ ba nga xam ne mënumaa bëtt tere li yàlla tere li li yàlla digle mënuma ko bët dem ci li muy tere ndax damaa ñoŋ yàlla moo ma ñoŋal yàlla moo ma ñoŋal ba nga xam ne damaa ñoŋ mënuma bàyyeekoo ci digle yi nga xam ne moom laa topp di dem ci tey di def damaa ñoŋ saa xismatin mbir ma ma nekk ku ñu ñoŋal waaw wa fustu tuufu naa bi salaama ci mucc ci bépp ayib waaye mucc itam ci tàqeer mucc itam ci wàcc yoon lislaam mucc ci mucc itam ci ñàkk a topp alxuraan waaye nag mucc naa itam tabarika la ci ñàkk a topp li nga xam ne mooy ak istixaama moo tax ma ti may borom ak ñoŋ waaye wu wa fustu tuufu naa bi salaama ci mucc ci gépp ayib maanaam damaa damaa mucc damaa laq ci mucc ci bépp ayib bépp ayib ba man suñ tubaab mucc naa ci moo tax ma ne saaximati may borom ak ñoŋ waaye wa fustu tuufu naa bi salaama ci mucc ci bépp ayib te xam ne léegi nag am naa jàmm mooy tegee naa ci yoonu sunna tege naa ci yoonu siraatal mustaqim léegi mucc naa ci yooyu yëpp benn lor dootuma gàllankoor xaq baat yëpp jéggi naa leen